ah sama gars yi xam ngeen ni vendredi ren herbe épice moo aaye waaw kay fii ci Alphie Cuisine ñu dem xool recette du jour bi sama gars yi ay ca waaw kay. waa Alphie Cuisine euh, nuyu naa leen sama gars yi di leen ziar waaw di leen ndokkeel euh, comme niñ koy defee rek euh, on reprend le service voilà vacances yi jeex na <laughs> relax bi jeex na aywa ren herbe épice dikkati na sama gars yi bàyyi ngeen nii yaasa ginaar lu neex la loo xamante ni euh, dañ koy bëgg surtout ñun ñi nga xamante ni euh, dañu nekk ci extérieur des fois bëgg yaasa xam ngeen ni nag yaasa express dafa am tey nag yaasa express la ñuy defar di ci ànd ak euh, ren Herbes Épices yow sa sa sa sa sa sa comme ni ma koy waxee sa temps do doo jël temps bu bëri di nga am sa yaasa bu neex yaasa bu saf yasa voilà ba pare da ngay def sa lépp daal di dem toog na le di seetaan sa sa yu neex voilà ak nu mu ci mënti demee daal jàpp leen ni. numéro de téléphone ren RPPIS changé wul voilà 77 390 69 72 ngeen am 20 variétés épices yi nga xamante ne lakk ginaar bi ci la bokk moom nag la ñuy jël ak nokkas bi daal di defar sunu yaasa bu toj boo xamante ne yaasa express lay doon sama gars yi go. nag euh, lépp fii laa koy def dugal ko ci fuur bi voilà li yaasa di am nag lay am waaw def nañu ceeb bi dama koy euh, togg ci cuiseur bi dina am macédoine am pour yéen ñi nga xamante ne yéen a nekk waaw euh, ci ci euh, diaspora bi te manqué temps euh, cuiseur ceeb yi nga xamante ne gars yi dañ koy am buñ ci defee macédoine bi dafay am temps wu ñor parce que xam nga bu ñoree ba pare danga koy bàyyi ci pot bi muy continuer di tàng donc soxlawul sax ngay blanchir li nga xamante ni mooy légumes parce que da ngay am ay légumes yu croquants ren herbe épice nag min ngeen ay épice am épice nokkos bi nga xamante ni kaani sélection poobar laaj ak li nga xamante ni mooy mélange épice moo nekk ci biir bu xew mi neex ba ngeen fàtte nag ni euh, ren herbe épice dafa am épice spéciale yaasa yaasa jën yaasa yàpp wala yaasa ginaar yaa xam ban nga ciy taamu woote ci numéro téléphone bi 77 390 69 72 fépp foo toog ci Sénégal ñu livré la yéen ñi nekk ci étranger bi voilà waa Espagne waa France waa Bruxelles wala waa Norvège yéen da ngeen di dugg ci site internet bi voilà 3w point ren tiret épice point com ndax question yi dafay ñëw bu ngeen duggee ci site bi sama gars yi tànn épice bu leen neex daa di fay remplir seen panier fay ngeen toog fi ngeen toog reen herbe épice mooy doxantu ñëw ba fi ba seen kër sone andi leen seen pagu épice voilà léegi nag euh, ku ne xam na ni xorom mooy jiitu damay xorom bu ñu xoromee euh, daal di jël nokkos laaj euh, poivron soble ak jinjeer dëbb ko defar sunu nokkos bu saf-saf fii daggat naa fi poivron couleur ak li nga xamante ni mooy soble ginaar gaa ngi ne la raxas nañ ko ba mu set pour jeeg ju ndaw ji nga xamante ni ak célibataire yi mënuñu raxas ginaar bu ngeen euh, di raxas ginaar da ngeen ciy def xorom ak vinaigre bu ko defee rattaxit yi day dañ parce que soo defee xorom rek daf lay permettre nga dindi rattaxit yi nga xamante ne ñoo nekk ci ginaar te kenn du ko lekk. voilà def ko ñetti ndox raxas ba mu set ba ndox bi clair voilà laurier yi ak euh, ak euh, limon bi tamit duñ ko fàtte bu ma xoolee sax sa ci sama placard bi su ma amee olive dinaa ko ci def parce que man damay bëgg su may lekk yaasa di ci def olive restaurant ba ma nekk nag maa ngi leen di xaw a rey yaasa ginaar <laughs> waa seen remo léeg-léeg ma def sama menu di def yaasa ginaar mais yaasa ginaar à la voilà à la Suissesse nga xamante ni limon bi du saf du ma def ñoom kaani du ma def ay épices piquantes voilà day light daal mais gars yi bëgg nañ ko lool sama gars yi parce que léeg-léeg su ma su ma defaree yaasa sama xel dafay dem ci sama team Alphie Cuisine am naa fi épices piquantes nag moom lay seet voilà épices piquantes du mën a ñàkk ci euh, li nga xamante ni mooy am ginaar voilà épices pi mi ngo épices piquante épices yaasa épices lakk yàpp épices nokkos voilà épices sauce épices lakk ginaar yooyu yëpp da ngeen koy am ci Reen Herbes Épices ay wala yaa ngay woo ñu jàll léegi ci assemblage waa ay ca mi ngoog léegi nag marinade bi avant marinade bi ñu dëbb nokkos bi bu ñu dëbbee nokkos bi épice ko def ci épice piquante ak épice nokkos ndax moo koy renforcer ay ca nga ci biir sax paccalu ma ko man maa ngay wax rek ay wa nañ ko limon yaa sa dee saf limon am naa fi limon doom bi ba pare am fi limon ndox waaw limon bu jaune bi donc moom it nañ ko ci paccal voilà rapidement ñu daal di def sunu ay épices nokkos bi dama koy laal pour mu dugg bu baax ci ci ruq-ruqaat yi comme duma ko saaf nga xamante ni buñ ko defee ci dëwlin bi da ngay perte nokkos bi donc façon bii nag daf lay permettre nga garder gu guwu nokkos bi ayca maa ngi ci marinade bi de xam naa <laughs> gaa yaa ngi naan ma alfi sa sa sa sa sa sa kii na euh, doorewul waaye maa ngi ñëw ak sama renfort épice su lakk ginaar épice su piquante piquante bi lakk ginaar bi lay boole ak yaasa bi mu gën a saf piquante bi na ci dem voilà mais day piqué nag moo tax duma ci def lu bëri épice su yaasa yaasa express ak yaa sa ginaar ak yaa sa jën walla yaa sa yàpp voilà moom foo ko woo mu wuy la et dañ ci def laurier mu épice la bu sap sap ak laurier waaw gis nga sama couleur ni muy ñëw tamit li nga xamante ni mooy soble bi ak poivron bi may ko nokkos essayé leen ko surtout sama célibataire yi di wax Alphie Cuisine daf leen di fàtte fàttewu ma leen sama neeni tuuti ci épices euh, lakk ginaar def ci épices sauce voilà man du ma togg bouillon man épice laay toggee toujours question boobu dafay ñëw man du def bouillon industriel ci sama ñam ren herbe épice kase laay def ci sama ci samay togg dangay am goût am couleur ba pare c'est 100 pour cent naturel waaw liy dugg ci biir yi dañ koy war di ko saytu parce que euh, jàngoro yi dañu bëri daal. waaw mën nga togg ba mu saf te doo ci def dara parce que ren Herbes Épices dafa jël euh, herbe aromatique yi ñoom persil voilà ñoom ñoom euh, romarin voilà ñoom origan jël épices yi nga xamante ne ay paprika la voilà euh, def ko xorom poobar dëbb ko ba mu mokk def ko ci paquet yi donc épice sauce bi moo lay jox couleur doré bi nga xamante ni moom la ñu bëgg ci yaasa yeeg ci ceebu ceebu ceeb yu weex yi voilà épice sauce bi moo la koy jox léegi nag nañu jël yëpp assemblé nañ jël yëpp assemblée daal di koy def fii. voilà xam naa gaa yaa ngi naan lu tax Alfi wax Yaasa Express lu tax may wax Yaasa Express mooy doo fi nekk di rosi waaw doo rosi et puis doo perte temps di xaar ginaar gi dooree ngay ëlbati fii lépp laay dugal fii. voilà wax naa la léegi liy dem ci Yaasa yëpp mi ngi fi daal di jël ginaar yi def ko ci nii bu ci nee daal di jël place limon nañ ko moutarde laa fàtte. Mhm. Yaasa day am moutarde. nañu moutarde dernier round bi fii ci ñeex bi voilà moutarde day am yaasa day am moutarde d'accord ñu laal ko ci nii këy voilà yëpp lañ ciy def donc plus muy ñor plus da ngay gis day wàcc moo tax bu feesee nii bu feesee nii du ma dera def ci sunu macédoine et puis bàyyi mu ñor sama gars yi xanaa du lii mooy express ayca bu leen fàtte numéro téléphone yi euh, bu ko defee ñuy ubbi four bi di yëngal moment bi dina la fekk nga dem def nga paase voilà wala nga dem euh, fóot yére yi waaw wala ranger kër gi raxas douche beeg ñoom seen voilà fekk yaa sa express bi di mijoton ndànk ci four bi euh, le temps que ñuy pare aywa ñu enfourner ko waaw yëfi saf la. Euh, lii ci cuiseur bi laa koy def bu ngeen ci bëggee tamit waaw bu ngeen ma inboxé ma wutal leen ci am na yu ndaw am na yu mag donc bii pour un litre la waaw bii pour un litre la léegi comme li ma wax rek damay jël macédoine bi def ko ci nii def xorom. voilà sànni ci tuuti huile d'olive ngop léegi nag dama koy dem def teg ci kii woo ci li koy togg voilà bu dangay tëj moom boo ubbee def fekk ñàkk ba pare waa xanaa du li moo noppale nag sama ay yi <laughs> ayca ayca waa Alphie Cuisine ana ñu doon laam-laamee ndax dina am ñeex wala du am ñeex yaa ngay gos yëf yaa ngay gos dégg nga maam waaw tournée bi nag du ci mën a ñàkk tourné ko nii gis nga ñeex bi waaw kay yëf yaa ngay compoté oxo fi mu nekk nii jot naa fi def sama sama sama ménage bi jot naa ko def voilà ñànxatan ba pare na fa laa jëm su ma paree fii wan leen ñànxatan bi waaw tourné ko nii moo ciy des waaw bàyyi mu ñor et puis ñu daal di yàq yaa sa express boo amee sa olive nekku ci pëy waaw kay waaw kay waaw kay mën na ne ak mënul ne essayé leen ko eh doot leen ko bàyyi de ma ne ko doot leen ko bàyyi de ay ca gis nga voilà nga am fii sa ñànkatang express wesang na da ngay seet lii rek oxo oh, ah waaw ak lu mu nekk lekk express dina amaale légume waaw koy légume yi dañ koy lekk du ñu fàtte légume yi ndax ren herbe épice comme ni ma koy waxee ay produits 100 pour cent naturel moom boo koy lekk faaw mu ànd a légume sama épices yi ma utiliser ngi nii lakk ginaar épices sauce piquante yaasa ak épices nokkos ay ca léegi nag dañuy xaar euh, ginaar gi doore waaw gën a ñor rek ñu daal di jàll ci euh, présentation waa ay ca waa Alphie Cuisine yëf ya pare na waa gis nga la mu doore am na ñeex yëf yaa ngi bax ba léegi sax waaw ndax maa ngi koy soog a génne ñànkatang bi moom it ba ci ñànkatang sax ñànkatang express la ñu defar waaw juste pour vous montrer rek euh, ñàkk jot wala ñàkk temps lu saf loo xamante ni comme ni ma ko waxee léegi yaasa express bi ngeen gisandoo ko ñu ànd ci nag ak ren herbe épice ndax ren herbe épice bis ma wax ko vingt variétés épices yoo xamante ni benn bokk seeg sa morom tey utiliser nañu lakk ginaar sauce épice su piquante épice su yaasa bi nga xamante ni yaasaa ko tax a jóg épice su nokkos voilà wax naa lakk ginaar et puis euh, ñu defar sunu yaasa express boo xamante ne terewuñu liggéey terewuñu def sunu ménage. un très bon yaasa rek ci sedd bi <laughs> ñu yàkkal ko wa Canada waaw waa Canada tam sedd nañ trop voilà yàkkal ko Euh, Suisse yàkkal ko wa Italie waa Espagne bu kenn mer nag wa Maroc voilà et puis di wa waa Turquie bu ko defee nag sama gars yi comme aljuma bi la ñu nekk aljuma juma mubarak et puis on se je vous souhaite une très bonne chaque vendredi yi Reen Herbes Épices moo aaye ci Alphie Cuisine voilà nii rek lay demee tey ñu def yaasa express suba beneen vendredi ñu xool ci leneen lu ñu ñëw daal di voyager dem feneen sama gars yi voilà et puis je vous souhaite une très bonne dégustation sama gars yi du yéen ah sama gars yi xam ngeen ni vendredi ren herbe épice moo aaye waaw kay fii ci Alphie Cuisine ñu dem xool recette du jour bi sama gars yi ay ca waaw kay